Euh, salaamaaleykum euh, man maa ngi tudd Mbaxane Sall bokk ci collectif national des impactés du terre Je euh, suis aussi ci département de Dakar nekk porte-parole cadre des impactés du terre du département de Dakar. que woote bi dire ko waral e, dañu bëgg a la situation TER bi fii mu toll ci Dakar d'autant plus que am nañu ay autorités yu bees dafay jaadu.

Euh, le nouveau président de la république qui situé à Chambon. alors ce qui est le la c'est que nga bu que ab euh, état dafa am projet a am document bu muy présenter banque bi et banque et la banque soog ko a jox ay ay accord de crédit et dans le cadre terre le document est mu PAR PAR plan d'action et de réinstallation plan d'action la banque bi da ci d'accord état bi d'accord ci ñu soog a le koppar mais plan d'action boobu moo nekk nii alors quand nous ko génnee et ci la bi ko valider ci la banque bi jël état bi jox ko Si bokk na ci ponk yi ci gën am solo banque bi dafa xamal état bi ne ko da nga respecter ci part bi ci plan d'action bi lu appelle wax SO2 c'est ay sauvegarde opérationnelle maanaam ay euh, ay mesures yo xamné soko dalgaté di nga yóbbu population bi ci ndol ak troxtangé loolu bokk na ci li gëna am solo ci plan d'action de réinstallation plan d'action bobu nak état bi daf ko dalgaté respecté wu ci dara appliqué wu ko sax faf ñom bañu démé ba génné sen jël sen document ba yobbu ko ba banque bi signal leen ko ci lañu jël plan d'action bi denc def lu leen neex mu indi ndóol ci population yi indi ndóol ci ñi yàqule ci terre bi ñun ñi ci lañu bokk alors naka la indee ndóol euh, damay jël rek benn exemple euh, ci foncier bi dafa am barème boo xam ne moom lañ fixé ci plan d'action bi barème boobu ñoom respecté wuñ ko dañoo seet bu ko gën a yées fay ci population de Dakar maanaam seen suuf lañ ca war a jot ci koppar boo doon xaar huit cent mille wala 10 millions yow do jot dara mu am discrimination bu reuy loolu nak jural askan bi ndol ak tion perte de revenu yi fayuñu ko maanaam appliqué wuñ ci dara mu ngi ni dara lañ ci appliquer et buñu togué di nopi nak régime bu bess bi day japp né mbiri yi jaar na yoon n'est-ce pas donc il est bon que ñun ñu taxaw fi pour léral lool impact impacté de Dakar. et impacté de Dakar et impacté de Rufisque impacté de euh, de euh, ay département la yu que collectif national des impactés du terre gis nga problème bi am Le problème non. mo am ba may wax ak yow Rufisque amna ci ño seen mais Dakar, c'est le plus important. Parce que Dakar, non seulement fait une nouvelle, mais je vais vous donner un exemple. L'union de Dakar, c'est la qui a été créé. Après que j'ai déclaré 1500 maisons. 1500 maisons, alors que nous avons une 700. Et les chalices, ils ont tous les deux. Ils ont fait des dossiers. Vous m'entendez donc situation bi dafa soxla et ñu ñu xol par bi xol ndax exactement APEX li muy wax ne doxal doxal wala c'est pas compliqué ñu ci wo nak gouvernement bu bess bi ñu le plan d'action et de réinstallation nous ñu lire ko xol ndax APEX doxal nako wala doxalu ko né suñ ko xolé dinañ xam ñun li ñuy wax lu la c'est loolu dañ interpelle le directeur de le nouveau DG de l'APIX parce que APIX dossier Donc donc na le plan d'action bi avons exactement le directeur de la libération des emprises Nous déplacement le DG de l'APIX d'antan est-ce que appliqué na conclusion bi moy appliqué wuñu ko parce que banque bi ci bopam muy la BAD banque africaine de développement mom def na audit de conformité ba saytu document bi ba gis né état bi appliqué wu ci dara.